ndax dañoo bokk senegal ku nekk di wax ñi xam di wax ñi xamul di wax ñi mën di wax ñi mënul di wax yàlla def li ko neex mën na nag ku nekk gore ñu toog xool fii yëf yi jëm du woon leneen loolu la dama ne rek dama ne rekk foogoon naa ne nag li ma jàppoon mooy bu dee metti dana mun ñaari at ba ñetti muy doog a metti dëkk day balaa muy def weer nit ñi commencé jooy loolu moo tax gisee bi am sens gis nga boo doon ñëw bés bu nekk di wax da ngay dégg jox non ñoom ñoo fi nekk di yàq di puus nit ñi di def nii ñépp dañoo toog di seetaan kenn waxul en tout man bokk ci ñi wax talu ma ko woon sax waaye xamoon naa ni fii la jëmoon boo ko waxoon rek boo ko waxoon rek ñu ne ñoom ñoo ko organisé waaye boo dee teg waxoo kenn defoo ku nekk gis boobu la waxtaan di neex jubbanti ko it loolu nag du sama responsabilité seen responsabilité benn li ngeen di wax dëgg la mooy sonn ngeen jàpp ngeen ni lii du dem ngeen soppi ñaar ay wax la rek ñu continuer ba ci kanam. foofu la toll déedéet foofu la toll gis nga dafa jot ngeen wax ak seen i doom dafa jot ngeen wax ak seen borom kër. dafa jot ngeen di waxtaan ci marché yi dafa jot ngeen waxtaan ci jàkk yi ngeen waxtaan ci jumaa yi ku nekk wax sa yëg-yëg wax ko ci njekk ak teraanga wax ko ci jàmm jël décision en conséquence waaye yëf yi metti na boo demee woteel leen daa métteeku ndax nag kenn forcé wul kenn